d'accord léegi ñi xaar ñi xaar ñi xaar deuxième tour nag. <laughs> <laughs> ma ma ñëw ci Mourtala Seck ma ñëw ci Mourtala Seck bu ñoo lànk Mourtala <laughs> ban jàngat nga am ci la tenue de ces élections là ak euh, résultats yi nga xamante ni gis nga ñu bëri daanaka euh, nërmeelu nañ mais aussi am nañu ci am ndam bon d'abord damay féliciter mon frère mm-hmm. mm, boo xamante ni compagnon de lutte la mm-hmm. bu yàgg ci M2D ñu bokk ci ñu ko taxawal mm-hmm. muy man moom absolument Cheikh Tidiane Dieye Ousmane Sonko. ku mel ni ñeneen ña ci ña fi nekkoon jamono boobu. absolument m 2 euh, wax dëgg yàlla ma koy félicité. Euh, di ñaan yàlla. Mm-hmm. yéen du oyof ci kawam. Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. le président Bassirou Diomaye Faye. frère de lutte la boo xam yàgg nañoo ànd di xeex. Mm-hmm. seq respect jàmm. ci combat bu ñu mës a aussi bari na yu ñu bokk ànd ko. xeex ko m mhm. 2 dañ daan waxtaan ci euh, euh, euh, vidéo réunion yi mhm. man ku mel ni moom Ousmane Sonko ñeneen ñi ci bokkoon ba ay deux heures du matin pour xool nu Sénégal jege kon je pense que kooku bu ñu demee tey ba yàlla def ko njiitum réew mhm. suñu frère la ñu xamante avant avant yëpp di am dañuy ñaan yàlla mu oyof ci kawam. ok parce bu oyofee ci kawam mooy oyof ci kaw Sénégal. donc di ko féliciter waaye aussi. génne nañ communiqué sax félicité ko félicité ñëpp ñi nga xamante ni mm-hmm. wax dëgg communiqué bu ñoo lànk bi ngeen génne mais aussi dañuy félicité peuple bu Sénégal surtout parce que maturité mm-hmm. ci dalam ci teeyam mm-hmm. ci niñ ko jàppee woon ci àdduna bi yaakaar ni Sénégal dafay tàkk Sénégalais yi wane ni ñun ku ñu jàppee dof ñu utal la garab garabu dof donc félicité Sénégalais yi. absolument seen maturité. Mm-hmm. waaye aussi félicité opposition ni ma ko mën a tuddee ñi nga xamante ni ñoo waral tey Sénégal jàmm am. Mm-hmm. parce que tey ku mel ni Amadou Ba rek bu demande woon recours wala indi jolxo jolxo. Mm-hmm. yëngu-yëngu mun na am. parce que nga ne félicité opposition bi nga wax. a Ba moom laa lay expliqué moom laa non maam fi actuelle opposition ñooñu la. ñoom <laughs> non si. <laughs> Ah, actuelle opposition. wax dëgg yàlla. ñoo ñu lañ ko mën a jàppee. mais ci bu ñu demee élection. Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye gagné félicité ko ci guddi gi loolu li muy am bariwul. ña ko def dañ leen di sant. Mm-hmm. xam ne bu ñu ko defee loon tamit. mën na mën na indi gol jol loolu la rek parce que li ñu def dafa gën a rafetal. Mm-hmm. Sénégal Bassirou ci boppam wax na ko ci discours am. Mm-hmm. président donc ñoo président président aussi félicité ko. donc léegi débat bi fi mu toll man dama gëm ni. mooy Sénégal moo gagné. absolument Londres gagné wul Belgique gagné Côte d'Ivoire gañewul Sénégal moom moo gagné. Hmm. et et puis man dama gëm ni comme Sénégal gañe na war nañoo xoolaat toogaat yi. Hmm. wàññi wax ci cause bi tax ñu gagné amut sens. actuellement. Hmm. na soo Sonko doxeek na Bassirou Diomaye ànd ak na kii li ma dégg Ousmane wax moo ma moo ma moo ma amal importance. nan nga dégg mu wax li mu wax mooy. bu leen yaakaar ni day yomb ci ñun buñ ko jëlee. parce que espoir bi dafa diis. boo ko d'espoir. ah oui. léegi nag moment bi ñu toll. moomaay fulaay ut am la waaye fulaay am téye la. Mhm. fulaay ut moo doonoon lañ dem ngeen uti yàlla dénk na leen. fa falillaahi alhamdu mhm. waaye la topp ci dénk ba la Sénégalais yi soxla fi mu ne nii. Mhm. waaye du hut ni na bañuy campagne ni mu demee nii loolu c'est le actualité bi topp bi ñu toll tey man dama gëm ni mooy naka la ñu fexee ba sénégalais yi ñoom loolu loolu moo nekk deuxième point bi mais problème bi mooy déjà xam nga bu ñuy balaa ñu yegg si foofu foog ñu jàngat mhm. résultat yi mhm. parce que les sénégalais se sont exprimés moom nga wax mais mais l'expression mais jàngat bi weesu naa ko man waaw li ma jëkk wax mooy jàngat bi l'expression de ces sénégalais la jàngat bi mooy lan mhm. ku teg sénégalais yi dof sénégalais yi utali la garabu dof mais man bugguma nekk fii di entrer dans les détails de PDS wala Khalifa Sall wala parce que PDS même pas une semaine lu ko Pastef waxul amul ci bi mu demandé ci bi mu demandé pour ñu dàq élection yi. absolument wax bu ñaaw bu ko waa fu waxul amul. Mm-hmm. ba Pastef nangoo dem ànd ak moom ñu du daa sangal ko ginnaawam wax ni dañoo baax wax ni ay jàmbaar lañu wax ni dañoo bëgg Sénégal ba teg ci sax ne Jomaay mooy Karim Karim mooy Jomaay tappale weesul loolu waaw ah, mais est-ce que ñan a tappale bu pas bu bu tappale di am est jàppalewul Jomaay duñu dem aussi bu tappale di am bu tappale di moo tappale ah bon oui parce que xam nga moo tax mënuñu fi nekk même pas deux semaines PDS amoon droit ci assemblée nationale dugal recours te yéen ngeen koy def ak seen ay député ñëpp ŋàññ ko daan ne non warul demee nii wax wax ju ñaaw daan ne nii ak nii ak nii ak nii dañ leen waxante dëgg. ah bon même pas deux yaa ko fekkee teg ñëpp teg nañ ci bët même pas deux jours PDS nangu laa jàppale nga ne léegi nag jomaay. mooy mooy mooy PDS. PDS mooy Diomaye. Karim mooy Diomaye Diomaye mooy Karim loolu. loolu non attends dañuy dugg ci parce que li indi loolu. non li indi loolu li indi loolu. mooy Thierno mi ñu ne waxoon mi ñu wax parce que Amadou Ba lañ accusé woon. ne moom moo corrompre ko se. Euh, nag euh, entre ki ñuy accusé nga jàppale ko. ak keneen koo xamante ne bokk ci kan ngay kan ma dagg baal ma ma yéegale xaw ma li may wax. Mhm. dafa leer dama ne. Mhm. buñ naree dugg ci détail yi. waaw ki lay tagal say maam day wax yu baax rek na bu def na lii def na lii li mu deful moom doo ko wax. fii ku fi falu matoo cent pour cent. Mhm. moo tax ma ne la bëgguma ñu dugg ci détail xam nga lu ma gëm man fi ne nii. Mhm. gannaaw ba mu félicité le président Bassirou Diomaye Faye te moom par sa discours daf ko wax. Mhm. ma mu doon discours bu ma amee. nekkul lu grand public bi di wuuxu nii di wax non. da nga wax sànq lu am solo et puis ma félicité ko mooy jubilé wuñ. ah oui ah oui loolu c'est un constat non signe bu ma la ci ñoom. li ñuy xaar dafa diis. parce que li ma jaaxal moo gisoo fenn ñu jubilé ah Ousmane Sonko tourné waat daal ne li ma li ma jaaxal dafa li ñu li ñuy xaar dafa diis mes frères. Mhm. sénégalais yi du ñu ñuy nax te ñun fas yéene wuñ pour pour nax sénégalais. kon bu leen yàlla joxee li ñu doon wut bañ félicité leen falillaahi alhamdu heure bi du heure wax. Mhm. du heure indi ay inconvénients du heure kañu gañe lu tax ñu gañe ko. Mhm. amatul sens. moo tax man su ma duggee ci débat di dugg ci a indi indi ay inconvénients yu Pastef def parce def. ah bon oui mooy erreur yi ma yi ma la wax ni dama jàppee ko erreur beneen bi ci topp bu dee ci félicité xam nga dafa am yu fi jaar fii yu bari yoo xamante ni buñ ci dellusee rek débat bi dafay gudd. Mhm. débat bi xam nga fu ñu toll ni man li ma gëm ba gëm ko en tant que sénégalais bu gëm ni Sénégal moo gagné tey mooy kii gagné gagné na sénégalais bu mën a jóg taxaw jàppale ko ngir Sénégal am ndam. da ngay war a taxaw jug jàppale ko pour Sénégal am ta am ndam mais nettali ay xuloo ay détails la éternel recommencement lay indi ci Sénégal. ok éternel recommencement boobu mooy kii moo fi def lii kii tontu na ko lii ay détails et le diable est en détail. Mhm. détail buñ ci dellu si waatee tey Ousmane Sonko du liggéey Jomaay liggéey parce que détail lay doon. Mhm. te ñoom man li ma gëm mooy ci dénoncé ak wax li fi ne ak lu dul yoon li ñu jàpp ni ñoom du yoon moom lañ dénoncé di ko wax yoruñu woon nguur yoruñu woon signature. peuple bi topp leen ci loolu gëm na ñii li ñuy wax moom mooy loolu léegi peuple bu la gëmee ci benn affaire ba sa gagné leer te kenn contesté wu ko. absolument bu doon tey kenn daa am koo ko contesté sax ñu mën a wax. Mhm. mais kenn contesté wul gagné bii nga xamante ni gagné bu rafet bi Bassirou jomaa Diakhar fay gagné. Mhm. loolu nag buñ ca tolloo actuellement man damaa gëm ni lii yoon te ma gëm ni Bassirou wax ko mooy naka la ñuy def pour ànd liggéey Sénégal. Mhm. foofu lañ toll mon frère. beneen bi ci topp may wax ni Bougane Gueye Dany aussi. man lii ñuy wax ci moom d'accorduma ci. Mhm. ah oui xam nga la moo tax d'accorduma ci. waaw sénégalais bu ne fii da nga am droit xool li nga xamante ni mooy sa xalaat ci mbir mi nga wax ko lan mooy xalaatam ci mbir mi. am na droit naa xaar deuxième tour non am na droit. naa xaar naa xaar deuxième tour naa xaar deuxième tour mais dane avant deuxième tour xoolal communiqué bi. Mhm. sama ay sama ay euh, ñi ànd ak man ñëpp dem leen ngeen voter ñi bokk ci opposition bi loolu la bind. dem leen ngeen votal ñi bokk ci opposition bi. Mhm. sauf pouvoir bu leen votal pouvoir. waaw opposition bi bëri na dafa am dafa am lu ma terminer opposition bi la wax. Mhm. ñi nekk ci beneen camp bi la wax waxul voté leen pouvoir. sauf le régime. Mhm. nañ bàyyi Ousmane bi ñuy jël ak Pastef yaakaar ne ñoom rek ñooy opposition. wala ñoom rek ñoo radical wala rek loolu amul xam nga lu am ñëppay tànn ñi ànd di tànn. tey daf cee am ñoo xamante ni ñii dañoo jàpp ni ñii ah ñii ñoo gën a ñoŋ ñee gën te ñoŋ sénégalais yi seere nañ loolu jeex na mais Bougane Gueye Dany li mu wax c'est très clair net et précis yàlla rek a tax may wax dëgg. Hmm. li mu wax mooy. damay xaar deuxième tour damay xaar mais at avant loolu da ngeen di jiital li mu li mu njëkk a bind amit na sama na sama dafa ne ma wax la li mu wax dafa ne ñi ma àndal dem leen tànn ku leen neex ci opposition bi ngeen voté mais bëgg leneen mais dafa nànk mais man damay xaar deuxième tour waaw mais amul droit amul droit joxe aven ci ci am na na droit am na na droit boobu man mi élection yi gëmoon naa ne deuxième tour lay dem ak ñi naa ko man gëmoon naa ne élection yi na dem deuxième tour ñi ko gëmoon te wax ko bari na mais gëm-gëm la wax na ko yàlla dogal na li muy dogal mais la mu jëkk a bind bu leen wax rek deuxième tour te tëb la mu jëkk a bind aussi. man damay gëm ni c'est de la manipulation. Mm-hmm. parce que mënul taxaw en tant que leader mu ne ñi ànd ak man ñëpp au moins il l'a fait bugaan. ok nee na ñi ànd ak man ñëpp dem leen ngeen voté opposition ba tey newul voté leen pouvoir. Mhm. on se dit la vérité nit nag bu defee lool da koy reconnaître waaye doo xool li nga xamante ni moo la neex ci wax ja da nga jël ko aussi. ok la vérité kon man gisuma erreur politique AVM la joxe comme ni ko Ousmane Sonko doon joxe keneen doon ko joxe comme ni ko Pastef doon joxe comme ni ko euh, APR doon joxe comme ni ko keneen doon joxe c'est ça la réalité. Ah, ah. loolu moom mooy dëgg. ok non si. ah ñii loolu mooy dëgg non mais <laughs> ma te donc man jàpp naa ni. Mhm. ba tey euh, fi ma fi ma fi ma fi nga xamante ni moom moo moom moom moom moom laa bëgg a daanele. Mhm. mooy damay rappelé waat que ñun nous ne faisons partie dëkkon obédience politique. Mhm. ce n'est ni du pouvoir ni de l'opposition tey ñun li ñu gëm et nous nous réclamons société civile. te ñun tey li ñu gëm mooy. gëm nañ ñu fu dëgg nekk ñu war ko wax ak koo mënti doon dinañ la ko wax. ok gannaaw félicitation bi ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañuy dellu di wax ak sénégalais Sénégal mënuñu ko tëgg ci coow Sénégal mënuñu ko tëgg ci bañante. Sénégal am na xeen bu fi jaaroon bu ñu ko fi indiwaat. Mhm. parce que arrangé wul kenn. Sénégal mënuñu koo tëgg ci lañ bët ay lu bon di ko waxante nit ñi. Sénégal ci ñu ko mën a tëgg mooy jàppante xool sa prochain que ni kii li mu yor man su ma ci jàppul man maa ko gën a bokk ci Sénégal. moom li mu yor nii su ma ci jàppul du dox nañu ànd ñu ñëpp xool lu doxal sénégalais mais bu ñu fi nekkee di sulli ay mbóotante dañuy nekkaat ci de commencement te loolu lañ teg pour Sénégal. ok jërëjëf Mourtala jërëjëf ma ñëw ci euh, Baye Ndiassé bu fekkee am nga lay tontu wala ñu ñëw ci beneen aspect bi Euh, mooy luy xaar parce que fu mu toll nii nag wax dëgg yàlla euh, mooy li Mourtala wax léegi nee na gisul ñu jubile